mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax uh, ci 30 minutes uh, chrono ci solution info TV uh, di ziar ñëpp di wax ñëpp déwénati di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp di nuyu ñëpp di leen ziar di nuyu waa El Hadj Modou Diouf Abdou Toob ak yi nekk ci régie bi fàllu di leen ziar di leen déwénatil son bu Sanjoogu groupe solution yëpp ñu ngi leen di ñaanal Assane Mbesere ñëpp ñu ngi leen di ñaanal su borom yokku leen maa jigéen suka béti ndeyaa ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax nag di ñaan suñu borom yokk ñu xéwal bu déwénee mu gën a neex bu déwénee suñu borom gën ñu defal sutura gën ñu defal wér ñu fekkee mën ko te tal ko loolu rek moo am solo di jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp ndaxte wax nag boo ko dee def moom mooy loolu des fois nga wax ba dugg foo foo xam ne am na ku mu neexul woo ci lu ko naqadi waaye moom day jàpp ni moom nga laal kon ñu ngi jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp. tey nag ñuy wax ci tabaski bii ñu jóge ak yi ci xew yu bari yu daje jur ay commentaire parce que tabaski buñ ko musaana jóge débat yi leneen la doon doon débat yi leneen la doon doon nga dégg ñu naan noo xar yi des na wala xar yi seeroon na nga dégg ñu naan noo soble beeg pomiteer bi ni la demee ne la demee xutba imam sàngam ak nangam naam sax xutba yi am na ci mais peut-être ay détails la mais dominé wul actualité bi actualité bi day wéy di gën di poli politique mais aussi polémique maanaam dafa boole politique ak polémique loolu nag mu doon loo xam ne mën na nekk ci avantage ci ñenn ñi mais mun na nekk ak inconvénient ci ñenn ñi ñu gis yu am solo ci tabaski bi yoo xam ne tey jii moo waroon a jur débat parce que lu mës a am bu amee am na lu tax wala boog loo xam ne gëj na am bu amee am na lu tax ñu gis ci ay exemple pour la première fois man sama bopp waxuma ni loolu moo am mais man mun naa wax ni pour la première fois ma gis wujje ci ay ministre wujje concurrence ci ay ministre maanaam wujje ci lu baax ma gis ay ministre parce que man dama mës a waxtaan ak benn kilifa bi ñuy wax euh, Ludovic Rosner peut-être ñi ko xam diine ak jamono gi yooyu te mu nekkoon anal xamatuma fu mu ne ku bari xam-xam Sidy Lamine daan na ko invité ak yooyu même man daan naa ci rajo yi ma nekkoon ak yooyu xamoon ko benn bis dama ne ko lan mooy problème mu Sénégal munuma lenn moom xam naa ko mu ni ma gouvernement Macky Sall moom ñaar mooy seen problème pour man soit mënuñu liggéey wala bëgguñu liggéey mu ne gouvernement wu Macky Sall soit bëgguñu liggéey wala munuñu liggéey mu ne parce que li tax ñu war a liggéey yépp mi ngi fi ay mbir xew nit ñi waroon ko def débat dinaa dikk ci Bougane dikk ci wàll Seck RTS dikk ci leneen ak leneen pour man débat bi leneen la waroon doon mooy li El Malick def Moussa Balla Fofana def ko ma Mabouba Diagne def ko Serigne Gueye Diop def ko mu mel ne ministre yi ku ne da doon bëgg a wane boppam pour wan la ni man maa ngi liggéey mbir mi du ay xam-xam du ay diplôme volonté kase la volonté man dama gëm ni ku ne mën na nekk ministre ku ne mën na nekk député ku ne mën na nekk président man loolu laa gëm day fekk nga am pas-pas ak volonté wu bëgg a def résultat tabaski danaan jot ma njëkkoog ci El Malick korité wala màggal wala gàmmu mais ñii di chauffeurs yi mel na ñëw moom dëkk bi jël seeni prix teg ko mu mel ne dëkk bi amul état amul ministre des transports amul dara te loolu li ci mujj mooy tata yi bi ñuy yokk paas bi fii tata ba tey jii mënuñu la wax fii leen jaar ba yokk paas ministre bi bi njëkkee yokk dafa taxaw mën leen kenn du ko yokk ñu jekk-jekk rek paas yokk ministre bi feneti Mansour fay moo fi nekkoon kenn xamu ba tey fa lañ jaar ba yokk ta paasu tata borom tata yi ñu imposer seen loi yokk paas xaw peut-être nag ci après du ñàkk régulariser noonu kook yooyu mais ci bu njëkk moom jaay doole rek la ko def ak sañ-sañ napp ministre bi parce que bu nee xadgal lay na rek ñu dem grève bii El ñëw jël costume bi teg fële def semise retroussé manche yi maanaam politique bureaucratie la sentir ni nguur gi ñi ngi koy commencé di dindi maanaam toog ci bureau rek di commandé mais ñu def politique tout terrain wàcc ci terrain bi dem boo maraîcher ne lii moo mën a ne bu nekkul état dina wane dooleem comme transport bi ay privé ñoo ko yor ñu jël transport public Dakar dem dikk ñëw imposer ko amul kenn koo xam ne ren tukki nga nga dingat nguur gi dingat loo xam ne pour la première fois au Sénégal un ministre am volonté boobu xam ne li du xam-xam am na ñu naan violé la loi bi li mu def war a koon def du xam-xam du loi du dara xamoo lan la volonté wu bëgg a def résultat lan la ci El Malick jëlee ñu ne ko mooy Ngolo parce que Ngolo Kanté mooy ki gënoon la dox ci équipe nationale bu France ñàkk caaxaan ëpp ci fayda xale yi jël ko. mën nañ wax ni semaine bee Sonko moo nekkoon sax à une mais El bi mu ñëwee dangay ngay sentir ni sax kotom moo gën a yëg bu Sonko ci semaine bi ci semaine tabaski bi parce que foo laal ci réseaux sociaux yi ngay gis. loolu nag la ñuy doyee ab ministre nekkul ci bureau bi ak di signer soli costume aju ca kaw. sori la réalité parce que ñi fi nekkoon yëpp dinaa ci dikkaat danoo sori woon réalité bi lii xew ci dëkk bi dëgg-dëgg danga naan dégg ak ministre bi wax nga xam ne li ñuy wax maîtriser wu ko maanaam ñun ñun ñuy dund mbir mi dangay ngay xam ne kii day tappale wala li ñuy wax maîtriser wu ko te loolu li koy woon mooy sori askan wi fi ñu doon yokkee paas ñett di tappale naan ah, billet retour beeg billet lii ñu ñëw indi Dakar dem dikk wujje am buuxante taat wuree da cee baax Dakar dem dikk wala moo mën moo ëpp doole ñëw teg état lii xam la lay indi bu beneen yoonatee ñi yor transport privé bi xam ne léegi am nañ wujj bi fi taxaw même buñ menacé ti menacé ni dañuy dem grève sax balaa ñuy dem grève dinañ ko wàcc TER mi ngi fi BRT mi ngi fi tey jii BRT bi li mu lijjanti ci diggante Géejawaay ak nii ñiy jël transport en commun xam nañ ci dara 57 bi jëm Kër Masaar ak Tëngéej daawul taxaw Liberté 6 da la daan imposer clando far force wala taxi tey jii ñëw na man bu ma génnee fii bu neexee jël ko dem bertin moo ko waral il faut que état bu nay wax force reste à la du question état day yor dooleem di xeex nit ñi wala muy ñëw di mbëkk wala muy jàpp di tëj c'est pas ça mooy état lu mu mënul da neexul bi lu tax ma ni dafa am wujje ci ministre yi ma xëy bi gaa yëpp tàccoo El Malick avant El Malick ma buuba jaañ ak xar yi tabaski jeex na doo fi dégg ku leen ne damaa lambale borom xar yi ko man ñi ma dégg ñu interroger la gongo rek la wax ñiy jënd tamit gongo rek mais ki jaay xar bi ak ki jënd xar bi bu ñu biggee ci tabaski tabaski neex na tabaski lool li da ngay gis xale yi di bind ci internet ñu ne remontada El Malick def na remontada ci kaw ma buuba parce que Mabouba lan doon wax naan ren xar yi yokk maanaam xar yi ak politique bi ñu ci def tax na lu xar seer seer ku ne am nga ak lu tolloog sa doole parce que nag li gënoon a métti ci tabaski mooy nga yor njëkk te gisoo xar mais au moins nit ñi ñu ngi doon gis xar yi léegi nag ku ne yaay xool bi nga attan nga yenu ko dem tabaskee nga sentir ne ministre bu ne wàcc na terrain ma buuba amul fu mu demul ci terrain bi te yooyu lañ doon xaar dem ci terrain bi di wax ak jaaykat yi di wax ak jëndkat yi di leen déglu parce que am na ci ñoo xam ne billaahi buñ gisee ministre bi loolu rek doy na leen maanaam loolu day sedd seen xol mooy sa kilifa bàyyi na léppam ñëw ci yow day sedd seen xol ma xëy ma gis ministre bi yor wàllu soble pomiteer rek ñoomin seen bu ma juumul Serigne Gueye Diop la tabaski daaw soble ñaata la doon jar tabaski daaw pomiteer ñaata la doon jar nga comparé ko ak bu ren te loolu lépp lu ko indi mooy volonté mooy li El am mën naa ko am lu ma buuba am mën naa ko am du ma toog sama bureau mbir mi damay fexe ba tabaski balaa moo ñëw ma lijjanti lépp ba mun a koj na koroj nga xëy nga gis la ministre Moussa Balla Fofana mbalit mi moom ak ñi doon tonn mbalit mi ñoo àndoon parce que seen yitte moo doon fexe ba tabaski bu weesoo doo romb fenn gis fa ay jallu mbalit ñi def ci liñ mën mais ministre bi accompagner leen mais loolu day tax liggéeykat yi dun am complexe loolu day tax liggéeykat yi gën a am volonté parce que ministre bi waroon tëdd këram di tabaski moo wàcc ak ñoom ci terrain bi lii nag yu beex la ci réew mi boo gisee ma koy souligner yu beex la te yii dafa rafet peut-être nag njëlbeen gi la waaye dañ ko war a continuer ba cinq ans yi jeex ñu bàyyi politique bureaucratie ji nga Macky Sall liggéey na de bi muy nguuram di waaj jeex xam la la wax gaayam yi man li ma naqadi mooy li ma fi def yëpp sénégalais yi duñ ko tudd duñ ko wax xamalu ko indi woon ay détails aji saar sonko diw diw yaama dóor yaama njoos ma li yu ñàkk fayda lan dugaloon Macky Sall moom tam mu topp ci rek matat bi ministre bi ñu dénk wàllu commerce bu waree ñëw wax ci commerce aji saar lay wax sonko ministre bi war a wax ci wàllu justice bu waree lii lii lay wax ministre bu war a wax lii maanaam dafa dem ba les ministres de Macky Sall ñaari débat la noonu am Adji Sarr Sonko Adji Sarr Sonko Adji saar Sonko au lieu ñu wax sur les réalisations du gouvernement defuñu ko berte bi ki ci dugg dem dikk xam ne lu baax la mais mosuñu ñu ci def communication mukk ñi daan jógee Tëngéej di dem Dakar teer bee gën ci ñoom parce que fu ñu daan fay junni mun nañ fa fay juróomi keneen ak keneen mais mu suñ ci jéem a waxtaan pourtant am nañ fi ay programme ay PUDC ay Puma yooyu yëpp ay nguuru Macky Sall daan na ko def mais daaw ñu ko wax foofu nag laay invité les patriotes mooy li ma suluñee ci ministres yi ak wujje jëm ci lu baax man dama gis ni dañ doon wujje jëm ci lu baax mooy El duma ko yóbbul Moussa Balla foofu du ma ko yóbbu keneen ak keneen nga sentir ni ministres yi seq tabaski gi ku ne mi ngi dem jege askan mi bëgg a def résultat te résultat bi ku xool xam ne ñii tabaski bi liggéey na parce que nag dé déggoo fi nag xanaa nga bëgg a saboté mais doo gis ku jàmbat xar doo gis ku jàmbat transport doo gis ku jàmbat soble ak pomiteer doo gis ku jàmbat mbalit te bu nu mosaan jógee tabaski décooru dëkk bi ni mu daan mel ñëpp xam nañ ko parce que danoo amoon ay nit ñoo xam ne la ma li Ludovic Luxembourg waxoon mooy mënuñu liggéey. wala bëgguñu liggéey amal diplôme bu la neex jàngeel fu la neex taxawal fu nga boo nga bu amul volonté pour def résultat doo ko def léegi nag liggéey boobu patriote yi lu tax sànq ma jël exemple ci Macky Sall ak waa yi ñoo ko war a fësal ñoom yàlla dogal dogal na ni ñoo mën ci réseaux sociaux yi ku ci jongante ak ñoom ñu jogati la mais da gis ñu bàyyi fa El Malick wax ci benn fan wax ci kii benn ñaari fan wax ci li ñaari fan résultat yi ñu def ñoom da ko war a fësal seetlu bii ma am ñoom da ko war a am jàpp ni lii mosu fi am parce que bu ñu demee à l'heure du bilan yii la ñuy jël teg ko pour ñu wote la leen parce que euh, programme nguur nguur munoo nekk ci nguur ba pare di teg programme opposition mooy teg programme mais nguur bilan lay teg la waaja doon wax naan bilan bi doy na campagne yaa ngi jëm législative yaa ngi jëm local présidentiel yàggatul cinq ans du dara yii da ko war a jël def ay points jël tous les nga mettre ko de ton côté mais benn buggaan moo ñëw génn fële bisu tabaski naan ay sàcc ay fen ñu topp ci les patriotes topp ci buggaan buggaan buggaan li Bougane mënalul boppam sax mun ñu mënal ko ko mooy fësal ko sur le wàll sur le plan politique Bougane am na télé am na rajo am na mais sur le plan politique il a du mal à percer parce que ba bari na ay épreuve yu ñu ci kanam jéggiwu ko du parrainage du élection bu mu gagné du lii pourtant effort bu ne def na ko wër na Sénégal fu ne jaar na fa léegi nag les patriotes bëgg naïf à un point peu bàyyi fi El Malick bàyyi fi seen résultat yi ni def di def la promotion de Bougane pourquoi ma ni la promotion parce que li Bougane bëgg mooy fu ne Sonko na Bougane loolu la bëgg même buñ koy saaga di ko xas di ko génn ay vaar du ko saf parce que en politique feeg ñi ngi lay tudd Ablaye Wade moo ko doon wax Ablaye Wade maître la ci politique feeg ñi ngi lay tudd bu dee ci lu baax ay point yooyu marqué la bu dee ci lu bon ay points yooyu la marqué la loolu tax débat bi jëm ci Bougane les patriotes tey danoo war a xam ne ñoom ñoo nekk au pouvoir di nga boo nekkee au li pouvoir bi di liggéey ngay fesal yow nekkatoo ci posture opposition bu doon ci opposition no na kuy dal na kuy dal mais léegi da ngeen nekk au borom baatu wurus du xeex ak borom baatu neen ñu xam fan la ñuy dóor sànq maa ngi dégg Assane di wax sonk wax na ba daaneel ci mbiri impôt tuddul Bougane Bougane wax na ba daaneel mais Bougane li mu bëgg mooy sonk tudd ko. Sonko nag tudd ko waaye patriote yi ñoo koy tuddal parce que li lay wan nii diggante Bougane ak sonk amul marche mooy Sonko dégg na lu ne ci politique Sonko li mu dégg Bougane du ko dégg sonk li mu gis Bougane du ko gis lu mook ko mais sonk amul na ay bouclier yu ko defendre ay junni nit bu ko benn nit tooñee junnee lay tontu bi muy nekk dans l'opposition tey jii Bougane booy wax na li muy wax booy di dal ci kawam ban nit nga gis mu taxaw di défendre Bougane bu doon buggaan am na sur le terrain ay nit yu koy défendre yoral ko nekkal ko ci réseaux sociaux yi di ko taxawu mais on ne tire pas sur une ambulance j'ai beaucoup de respect pour Bougane mais li patriote yi di def dafa baax ci moom ñoom il faut que ñu xam ko te bàyyi Bougane di nga xuloo bu guddee ñaara ko séq man boo ma doon saaga fayuma bu yàggee nga bàyyi saaga yi te xam ne mais fekk yaa ngi may saaga may fayu wala ñu may fayul rek da lay loolu nag buggaan xaar ba bisu it bu ma ko doon conseillé politiquement dama naan ko bu mu ko def mënoon na ñëw rek julli julleem génn dem parce que bisu it discours bi ñu war a gën a bàyyi xel mooy le discours de l'imam xutba bi lu tax ñu naan xutba bi dafa obligatoire lu mënta ñàkk la parce que dañoo bëgg ci bu xutba bi weesoo ñu retenir la imam bi di wax balaa déwén ku nayoon tabe ku bonoon baax wax ci sujet actualité yi parce que jullit yi li ñuy am occasion bu dul ajuma di daje bariwul mais bis yooyu bis la boo xam ne jullit yi dañuy daje imaam am occasion wax ak jullit yi jël message u islam jox leen ko mais bi ñu génnee masaalikul jinaan au lieu ñu wax ci imaam bi li buggaan di wax la ñuy wax loolu buggaan waru koon nangu mais aussi booy waruñu koon nangu parce que li ñu doon xaar. mooy le discours de l'imam xutba imam bi pour man kàddu goog rek moo far a jib mais médias yi am une tradition Sonko a compris ça Sonko bi mu nekk dans l'opposition da daan éviter à chaque fois bu demee Touba wala mu dem fenn génn di def message politique même bu koy def day doon lu gàtt lu mu sànni mais léegi les politiciens li ñuy tiitaroo mooy génn internet yi wër la ku la wër la dëkk la kàddu alors que yow du sa kàddu la doon xaar la kàddu maanaam la parole de l'imam lan doon xaar parce que loolu la bis bi laaj loolu nag les politiciens comme ci mën ci doon bu ñu demetee ci béréb yi mel ni bu ñu paree julli nan ñaanalante baalonte ak dem parce que moment boobu mooy moment boo xam ne loolu rek la laaj leneen loo fa wax mën nga ko yàq wala nga yàq kàddu imam mun nga ko ci bañ a jublu mais boo seetloo après au lieu ñax ñuy jël kàddu yi imam bi ca Masaalikul Jinaan di ko fésal mais kaddu politicien la ñuy fësal alors que foofu politicien yi taxuloon ñu dem fa imaam a woote pour ñu julli it léegi nag bi muy def loolu am na lu mu ci jublu am na lu mu ci jublu parce que Bougane xamoon na ne bu waxee wax ji mu jur coow coow li la ci bëggoon man nag bu ma dee wujjeeg yow ci politique li nga bëgg du ma la ko may bu ma xamee li nga bëgg du ma la ko may boo ma saagaa du ma fay boo ma dóoree du ma fayu waaw ah, parce que lin naan boo féetee kaw ñu lay sànni xeer ngay wàcc boo deful nànk ci suuf nga jëm parce que affaire impôt yi ñu doon wax c'est pas politique même man bu doon ma naay sonko impôt sax du ma ci wax sonk dama koy ñaan bu mu waxati ci impo impôt du affaire am du affaire jomaay dafa am ay service yu ñu ko dénk pour ñu war ko doxal ay service yu ñu ko dénk pour ñu war ko doxal ñooñu moom kenn jomaay nekk fi Sonko makee ku mën a doon du tee ñu def seen liggéey mu ngi mel ne Senelec wala SDE bu lay jox facture yoonu jomaay Sonko nekku ci di nga ko fay for force looloo tax ay Sonko ak ay jomaay buñ ci wax nan leen nan bàyyee gars yi Sonko jomaay ku ci am problème impôt ak kii nga dem waxtaanee ko jéem a négocier jéem a xool ay moratoire au lieu ñi nekk ci kaw di gérer ay détails ñu gere les grandes ligne un état affaire du du gérer ay micro ay macro lay gérer looloo tax patriotes yi war a xam ni léegi ils sont au pouvoir même comportement yi ñu doon am dans l'opposition mënatul duñ ko am il faut que ñu day jafe nag parce que dañoo dund opposition dix ans bu métti ba léegi góomu xol yi day des ñëgg-ñëgg yi day des am na lu ñu téye ba tey mais boule bi tourné na bu doon ni ñoom danoo nekk moins tey jii ñi ngi plus moins da ngay soustraire da ngay wàññi plus da ngay additionner en politique surtout boo nekk un pouvoir da nga war di additionner maanaam da ngay xool li gën ci yow rek nga koy def mais lépp lu lay yàqal nga bakku wala képp ku lay yàqal nga bakku parce que lii ñuy def nag bu yàggee li buggaan am bëgg dina am. mooy match moom ak Sonko parce que la nature a horreur du vide opposition amul Sénégal actuellement li fi am du opposition affaire impôt jotewul dara ak politique peut-être Bougane bu jugoon mu ne ñi ngi attaqué sama parti ñi ngi attaqué sama permanence ñi ngi attaqué sama lii joxuñu ma sama récépissé ça c'est politique mais affaire impôt du lii même bu fi Sonko ak Diomaye nekkul woon keneen ku falu da ko war a lijjanti war a lijjanti impo ki war a fay fay ki war a négocier négocier mais depuis quelque temps da ngay gis les patriotes ils ne mettent que Bougane dans leur plateforme te pourtant plateforme yooyu liggéey El Malick waroon fa gën a fësal liggéey Mabouba war nañ ko gën a fësal danoo def ay résultats ci ci tabaski bi Moussa la keneen ak keneen état bi dafa def ay résultats ji nga en deux mois tey jii maa ngi dégg le ministre. Euh, Serigne Gueye Diop mu dem Touba avant julli gi mu ne ñi daan nal gerte gi dañuy fexe ba industrialiser leen ba ñuy mën a defar diw segal mu am qualité ñu koy jaay parce que bari na ci ñi nekk biir Touba rawatina soxna yi ci loolu lañu daan yongu créer ay agropole biir Touba maanaam ñu fexe ba Touba nekk une ville industrielle parce que Touba mbooloo ma fa ne ak ak darajaay dëkk ba dafa war a jariñ doomu dëkk ba maanaam genre programme yi mel noonu la les patrons loolu fësal parce que bi nga boo nekkee dans l' dangay da fexe ba sa communication li état bi di def lu baax nga gën muy gën a fës sa wax mais boo toppee si say adversaire da ngay dem ba fàtte sa bopp da ngay dem ba fàtte sa bopp fàtte li nga waroon a def erreur yooyu buñ ci du tombé surtout que nag ñoom danoo am ay détracteurs. parce que dama gis ci mbiri dund gi dund gi ne dañ koy wàññi ma dégg Momar Ndaw depuis quelque temps mi ngi mi ngi ciy wax Momar Ndaw mu ne dund gi non non avant dund gi sax Momar Ndaw voilà avant dund gi sax daa am lu mu wax mooy bi El Malick demee boo maraîcher ñu indi dem dikk mu ne loolu loolu du yoon ñu ko woon def ma gisaat mu ne ci dund gi conseil national de la consommation bi war a daje suba ñoom ñoo waroon a njëkk a daje balaa ñuy fixer les prix nguur gi waxul ni rek dañuy wàññi njëg yi danoo annoncé ni dañuy wàññi njëg yi bi leen laajee ni yéen a ngi annoncé ni da ngeen wàññi njëg yi dégg kañ la kañ lay effective maanaam wàññi bi kañ lañ koy daganal. ñu ne dañuy bàyyi ba après tabaski conseil de la national de la consommation daje bu ñu dajee ba pare ñu xool lee prix Momar Ndao mu ne danoo violer loi bi Momar bu doon xamul la moo doon violer loi bi domaine bi moom yaa ma ko gën a maîtriser nangul naa la ko mooy ñu xëy na wàññi nañ for force te conseil national de la consommation dajewuñu mais ba tey jii jaaykat yi lan doon jaay la ñuy jaayee. ba tey ji lan doon jaay la ñuy jaayee parce que état bi xam na ni il faut conseil national de la consommation daje ñu xool prix yi bu dee mburu mi quinze francs dañu am problème weccet mun na am suba ñu changé ko na léegi cinq francs mun na am a ah. nguur gi dafa def ay proposition annoncé ay prix def proposition ak annoncé la ay prix ne veut pas dire que loolu mooy am parce que bu doon lay am ban ko waxee ci saa si lay am mais dañ ciy daje ñu ne dañ ciy waxtaanaat. ak ñi war a def loolu surtout les prix homologués yaa ngi gis depuis quand Momar ndaw pour man Momar dafa mer Momar est-ce que réunion yi ñu doon def pour wàññi njëg yi boole nañ ko ci parce que ci nguur yi fi jaar nag mi Abdoulaye Wade di Macky Sall Momar da ci xejoon loolu dem ba am bureau présidence ak yooyu mais tey dama dégg lépp lu nguur gi teg ci mbiri prix yi mais Momar moo ci waroon njëkk ànd c'est bien li nga wax mooy ceeb bi nu wàññi quarante francs dañuy am problème weccet na nga ko def 50 francs baax na man man lu nu wàññi rek baax na mburu mi nga ni 15 francs na ko def cinq baax na loolu lañuy xaar mais Momar kañ la depuis quelque temps damay gis ni day ji bëgg a nekk ci place su yi mais Momar li El Malick def mënoo ko critiquer parce que yow bu dee nii da nga ne yow ñiy jëfandikoo consommateur yi ngay défendre mais waroo di défendre chauffeurs ak transporteurs yi. soit nga tas ASCOSEN ñu xam ni yow defendre trop les consommateurs way jëfandikoo yi ñu xam ko ñu xam loolu parce que Momar nag dëpp même nguur gi paase bu nee nan wàññi ndox Momar waa SDE lay defendre au lieu mu defendre ñiy fay ndox mi ak ñi ko soxla les consommateurs yi mu ne ñoom lay représenté Momar du leen defendre bu nee courant mu défendre waa Sénélec ba nguur gi tàmbalee ba léegi lépp lu nu teg ci bëgg a wàññi oyofal nit ñi mais aussi wàññi seen coono ci wàllu dund nga opposé wu ñëw taxaw léegi nag lenn mun a am bu dee Momar dafa mer parce que gars yi boole nga ko ci waxtaan ak yooyu gaay yi ko ci boole na ko ci boole parce que Momar ndaw je le trouvais très intéressant am na xam-xam mais xam-xam bi dafa mel ni koy commencé réer wala bu dee ni dafa nekk ab opposant bu bees parce que nag ay opposants yi bees danoo commencé am ci réew mi ay Momar Ndao Mamadou Ibra Kane ñoom keneen ak keneen ay Yoro Dia <laughs> ñoo xam ne may doo comprendre ah te la waaja doon wax waaju guy la mais guy mënul kërin quoi am na guy mën na ponkal nii rëy foo ko gis naan guy gaa ngi nii mais boo soxloon kërin du la jariñ dara te opposition bi da ci bari ay guy te guy wolof neen mënul këriñ waxin la guy mënul këriñ yaa ngi gis man tey jii li ma gis mooy bu dee ni opposition <laughs> am na waa Pastef daf mel ni ñooy oppose seen bopp parce que ñooy tëgg ñooy tulli ñooy tëgg ñooy tulli loolu ay momar yi il faut ñu positif pour un état boo xam ne mi ngi ñëw def deux mois bientôt trois mois da nga koy may du temps ji nga boo bañee dama dégg Omar sekk Ndiaye wax ko mu ne ji nga boo bañee ñàkk xorom wala nga bañ a ñàkk fayda wala nga bañ a doyadi nguur gu bees da ciy tey wala nga bañ a soof parce que des fois nga gis ci critique nguur gi da ngay sant ni amul argument da ngay sentir ni mi ngi soof aussi da ngay sentir ni mi ngi soof même njabootam di mu yilif sax buñ ko jiite woon dina na ko yaa soof loolu tax ñi mën politique xam politique nag parce que xam nañ ko mooy les socialistes la les libéraux ay Khalifa ay Barth xam nañ politique loolu la moment bi est-ce que dégg nga leen parce que xam nañu politique ñoom mais ñii ñëpp ay apprenti politiciens lañ ay apprenti politiciens parce que ni ñu koy defee du noonu lépp li leen dese woon ci crédibilité bu ñu deful ñàkk dañ koy ñàkk mos naa ko wax ci presse bi bi sonk ak Jomaay di doog a falu ma leen presse bi li ko dese ci crédibilité bu deful nànk ci déw mois trois mois la koy ñàkk bi wax. coow bu may wax loolu sama chronique coowal presse bi judduwul parce que il faut être intelligent affaire du ay diplôme jaar naa fi jaar naa question d' intelligence la ak sago booy bëgg bëggal nànk mais booy bañ bañal nànk mais boo dee bañ te bañoo ci sago rek tout excès est mais boo dee bëgg te bëggoo ci sago tamit noonu lay demee. lu tax sànq ma ni patriote nag ñoom ñooy seenu liiwu bopp opposant bopp mooy débat wu RTS ak Pape Alé Pape Alé jox ko RTS mu bëgg ko jox visibilité utiliser Wally Seck Pape Alé moo xam nan lay doxalee RTS ku ko neex na jël ku ko neex na def ambassadeur Pape Alé day day business eh, maanaam showbiz amul xarit intérêt lay seet bu jàppee ni loolu ci Wally la ne mu jël Wally du problème Wally démb gis naa ko TFM pourtant Youssou Ndour moo moom TFM mais TFM dafa gis intérêt ci waale moo tax ñu woo ko tabaski bi question foofu affaire leneen la quoi peut ñi ci xamul dara ak doxalin bi mën nan maandu bàyyi gars yi ñu doxal parce que RTS kenn mësu ko topp ndax information RTS ay loisir la nga ko daan toppee amoon na émission bu noo ay xam na loisir ay star des vacances ay ñoom Khalil Gueye ñoom kii RTS ay diapason waaw RTS boo gisee mu amoon visibilité démb da dañ daan utiliser les artistes pour la promotion de la RTS mais information dëgg-dëgg nit ñi la train qui arrive à l'heure du leen intéressé loolu tax du suivre RTS ay Walf ak yooyu li ñuy gën di suivre lool tax nan bàyyi Pape Alé doxal def liggéeyam peut-être Waly juum na il a mal parler parce que bu ne réew mi lu gars ku bëgg dara ci ndaw yi da ngay gisanteeg Waly wala nga wax ak wala nga boole ko ci mais parce que falu na ci te Waly defu ci dara Sonko ak Jomaay falu na Waly defu ci dara Youssou Ndour defu ci dara Waly bu ko Sonko ak Jomaay yaakaaroon duñ falu waaw loolu tax kon foofu dafa juum dafa juum waaw mais nan bàyyi Pape Alé mu doxal def liggéeyam peut-être à l'heure du ñu xool lan mooy bilan am quoi mais mi ngi teg ay fem pour rendre visible la RTS ñu ñaanal ko mu réussir ko ci jàmm ak salaam di gërëm baax Abdoulaye euh, Diallo abdu Top ak euh, lay jàlloo ak El Hadj Modou Diouf waaw Modou dama gaa gëj a gis <laughs> docteur bi doon ma réer ak Fallou di jégalu ñëpp di baalu ak ñëpp baat bi nag mi ngi noonu damaa xaw soj tey tabaski bee ma bàyyeegul di ñaanal ñëpp jàmm déwénati euh, kon ba beneen yoon incha allah.